MCS International, études d'information à l'étranger. Vous êtes élève du terminal, bachelier ou étudiant, obtenez votre admission dans les universités françaises, américaines ou canadiennes. Grâce à MCS International, vous bénéficierez d'un accompagnement et d'un suivi pour la réalisation de vos projets d'études supérieures à l'étranger. Contactez-nous vite au 33 868 69 28 ou au 77 826. Malaysia. bu wér. ngay ménager Modou Lo ñu gis repos bi amoon diggante Modou Lo ak Ama Baldé dig booba léegi foo leen toll yéen. waaw ko ginnaaw bañ sant yàlla julli seen sant suñu waa ñaari waajur ñu ngi gërëm assistance bi yëpp di gërëm ahlu lamb donc comme bañ déposé dañu war a déposé CNG yónnee nañu courrier transféré naa ko Modou yàlla dogal na def na opération am dellu na France bon repos bi man mu ko ne ay entraînement am bu yàlla dogal na ñoom certificat de guérison buñ ma dem déposé ko au niveau du CNG CNG woo promoteur bi ñu jàpp date promoteur bi jàpp date ñu tëgg làmb ji donc loolu rek la ñuy xaar. mais bu ci communication ci communication CNG wala seen règlement bi génn ñu ne combat bi maximum war na mën a durer ba mois de mai ndax Modou Lo bu bu tane diggante mois de mai diggante boobu war nañu mën a préparer un mois deux mois pour préparer combat diggante boobu Ama rabbi ça dépend ci ñun bu ñu li ci des yaakaar naa ci loxo CNG la nekk dañ contrat moo ñu tënk te dañoo fas yéene contrat bi daal. démb rek demb rek démb rek ñu ngi déggoo. ndax mi ngi yëg tan loxo rapport bi muy soo démarré. alhamdulilah rabbil bi ça s'est très bien passé waaw mu ngi mi ngi ci repos xam nga après lay bientôt rek mu mën a reprendre ay entraînement am si kàttanu yàlla. am na yaakaar ne dinañ ko bëri bi nekk nii. incha allah rabbi loolu mooy li ñu gënal wax dëgg yàlla. waaw loolu mooy li ñu gënal wax dëgg yàlla waaw ñu ngi ciy def suñu kéem kattan. am na fu muy am am na muy am. non contrat moom saa dépend comme cas force majeure la bon tamit ci loxoy CNG ñun amul lu ñu décider daal à part jéem a faj suñu mbër mu faju ñu jéem a dem rek déglu CNG lu mu ñu wax rek incha allah ñu appliqué. naa ci jërëjëf wa salaam. père Bour père. Euh, père Abdou Bakhoum waa maa ngi leen di dolli siyaar. alhamdulilah. yaay ménageur Ama Baldé ñu gis combat bi diggante Modou am abale Baldé ñu préparé ba dugg si semaine bi ñu war a bëre Modou am euh, blessure ñu renvoyé combat bi en tant que ménageur loolu ah non blessure moom mbër yàgg na ko am bëri waale ak moom mbër yi di bëri mbëru ndaw yi sax koo ci naan am na blessure mais da ngay am jom am xam nga doon bëri ay mbër di leen daan ñu lay daan ngay daan. actuellement na amul benn mbër bu fi tegalee six combats successifs daan ko ci mbër yu mag yi ku dul Ama bale moom da doon day daan di daanu daan daanu yeneen yi mbër it noonu lay def rek am na ci mbër yoo xam ne dañuy bëri ñoom dañoo feebar doog a ñëw bëri si am yoo xam ne dañoo am blessure gaañu gaañu gaañu bu métti bëri ñoom loolu mu dee noonu nag xëy na dafa neex. si blessure bokk na. non blessure yi ban blessure yow da nga blessure boo xam ne dañu ko wane ñu la dara ay kay rek la yoo xam ne dañoo négocier docteur yi du man su ma nee docteur kay docteur ma bind jox la doo ko dindi. kon yow su ma la déggee maanaam blessure bi yow boo xam ne moom France la ko dalee mu jógee France ñoo entraîné lundi dimanche la ñibbisi lundi mardi mercredi yëpp mu mu mu mu ci xëy suba tere jeudi te mu na dama feebar war damaa gaañu loolu xanaa kon néegam la gaañu. moo fi nekkal mbëri da CNG am na médecin xool na ko ñu ne Modou Lô dafa blessé. non bu neexee CNG rek combat bi am. bu la neexee lu tapale yi ñu def nii bu neexee seen seen ji day am ci kàttanu yàlla. kon lamb ji ko dafa am tapale. mooy tapale ci am sax dafa dafa leer parce que bu fekkee ne yow da nga wóor ne yow combat bi ngay bëre yow yaay say morom yaay say morom da nga doon bëre di am ay ndam ci ñoom mu neex combat boo Sénégal bëgg ko yow ñëpp di ko xaar nga toog ba mu des 15 jours ngay def loo xam ne day yàq sa lamb loolu foo ko teg tey ci moom mbër moo xam ne dem nga ba yëkkal sax dara boo xam ne moo ñaal xam fan. waxi caaxaan la rek loolu caaxaan la na gëm yàlla te bëri si moo gën. wiiri wiiri bi ni mu ni mu yàggee. waaw wiiri wiiri bi quatre ans la loolu dafa jaaduwul sax loolu àq la àq la fekkee ne ñoom xamuñu ne xale bi booba léegi gars yi bëgg lu ñu bëri de kenn ku ne yaa ngi kibir ay combat moom ñoom ñaar kenn kibir combat dañ leen ñu xas seen bés jàll. moo ne bu bëggatul bëre te yor drapeau bi loolu garaawul loolu moom moo la engagé waaye ñun. nañu xool li jaadu joxe ko mooy bu fekkee ne ñoo mënut ba mu bëre na wax ne mënutuma bëre mu leer nañ juuti beneen combat ñu ne duñu ci beneen combat. ndax am nga yaakaar ne combat bi nii nii euh, dinañ ko bëri saison bi nekk nii. waaw am na ci yaakaar bu fekkee ne jàmm am na waaw bu fekkee ne moom def na gëm na yàlla daa war a bëri ci balaa saison bay jeex ci kàttanu yàlla. combat bi ndax am naa app contrat bi. ah contrat am naa app am na date bu mu war a yem. waaw bi moom contrat bi ma yor man. actuellement nii changé guñu ko le 13 mars la waaw bind nañu ma lettre seen fee jox nañu ma ko jox naa ko sama écrit saytu nañu ko lu ci war nañu ko def fu ñu war dem nañu def def nañu suñu devoir suñu droit suñu devoir dem nañu ko suñu droit la ñu xaar le 13 la yàlla dañu seet suñu droit fa lañ ko mën a amee rek mu jeex. CNG mu ne maximum moo Lo war nañ toog ba mois de mars di soog a mën a tane pour ñu mën a xool ndax war na mën a bëre wala mënut a bëre. waaw loolu moom loolu docteur yi ñoo koy seet. parce que bu fekkee dafa am blessure bu yàgg boo xam ne bii dafa def loo xam ne muy gars yi mu yeewaat bu demee ci blessure bu demee ci docteur docteur da koy gis waaye loo xam ne ni yow am na ci yoo xam ne yii say faar ay metti ñii ne sa ndigay metti ñii nga naan sama mbagg ay metti yooyu amul yooyu amul ma bëgg danaa xaar leen mosul bëgg a bëree séance yi passé yëpp gisee ni mu def day ñëw ba fooy dëppaat nit ñi di ko xaar muy def ko neex dem yoonam. loolu ah non xam na loolu dafa daw. merci beaucoup. faïence yi nga xamante ni dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salde de ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca booru marché police ba seen numéro téléphone 33 820 39 95 wala 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul nak dañuy ubi du lundi au dimanche ah dama ne kon nak bo ay yu bax dawal gaaw séti wa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk foofu ca Parcelles Assainies ci marché police établissement Khadim Rassoul le choix de